teg ci suñu kilifay aada yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare ziar bi gën a màgg nuyoo bu gën a ànd ak barke tawféex eh, seen mbokk sëriñ Mor Tall moo dellusiwaat ci niñ ko daan defe saa su ne ci turu MPR xidmal xarnu bi di wax ci la nga xam ni lu soxal waa réew mi la tey nag dañuy wax ci la nga xamee ni naruñu ci woon addu sax bu fekkoon ni ah li ñu ciy dégg laaluñu ndax day mbir moo nga xam ni mbirum ñaari suñu mbokki sénégalais lañ muy nekk ci mbirum yoon kon ñun waruñ ci àddu mbir moomu mooy mbir mii ñu naan kii ñu naan sox eh, eh, Ousmane Sonko ak soxna soosu ñu naan ay eh, aji aji saar ah mbir moomu muy mbir moo xam ni kon jàpp nañ ni ñaari citoyen ñoo ko séq kenn ki tuumaal moroom mi yoon dugg ci ñu war koo àtte ba tax na ñun naruñu ci woon a àddu waaye nag dañoo dëkk Touba di taalibe Sëriñ Touba di yowoo Touba ah am ay responsabilité itam ci réew mi ak ci dëkk bi ba tax na suñu déggee am ñu ci wax ba wax ci turu waa Touba loolu moo ñu ci dugal ba tax ñu ciy wax bët ki demb rek dañoo gis vidéo yu bari yoo xam ni ay ndaw yoo nga xam ni nee nañu ci kuréel gi nga xam ni sëñ Ousmane Sonko moomu moom moo ko jiite ci lañu bokk ñu wax ci mbir moomu eh, am nuñ ko waxee noonu xam ni ñun bokkut ak ñun suñu xalaatin dëgg la waaye nag ñoom libre nañ ku ci nekk sa xalaat waaye nag biñ ci dugalee ni ñun waa Touba. naqar lu nañ nàngam ak it pare nañu pour jàppale Ousmane Sonko lépp lu mu woote danañ ko fekk si te ñun waa Touba itam demoon nañ ca xeex ba loolu moo tax ñun ñu ci génn àddu génn ñu ci wax suñu kàddu e, di xamal leen ni rek jàpp nañ ni kuy wax ci turu waa Touba day doon borom Touba muy suñu kilifa suñu yaakaar sëriñ Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha ba Bassirou wala ab porte muy sëñ basiiru Abdou Khadir Mbacké ñaar ñooñu lañu jàpp ni bu ñu waxee ci turu Touba mënees na ko dégg mënees na koo gëm bu dul loolu yi tamit ñi nga xam ni sax dañoo yore ay kuréel ci biir Touba sax bu ñu waxee ci turu seen kuréel yooyu ñu mën a xam waaye ay ndaw yu ni dañoo bokk ci kuréel gi Ousmane Sonko jiite bu ñu waxee seeni wax wax seen péete wax seen doxalin ba pare nag dugal ci ni ñun waa Touba dafay doon yoon ñun ñu leeral ni loolu ñoom la seen i waxi bopp waaye du waxi waa Touba na waa réew mi xam ni Touba benn kàddu la am sëriñ Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké moo ko yore di kilifa ji kenn koy waxal muy sëriñ Bassirou Abdou Khadir Mbacké di porte parole bi kon lépp lu fi nit wax nit waa Touba moom la engagé waaye engagé wul waa Touba dëkk bu nekk boo fa nekkee dafa am nu muy doxee te Touba ku ne umpalewul kenn umpalewul ni noonu lay doxee muy xalif général des Mourides ak porte parole am ñoom ñooy wax ci turu waa Touba ak ci turu askanu Mouride yépp ci àdduna bi kon bu fekkee dañoo am lu ñuy wax bu fekkee ne dañoo ki ñu am problème ak soxna soosu ñu naan soxna Aida Sarr seen kilifa la ñoo yay jàppale ko waaye nag bu ñu koy jàppale nañu xam ni ñoom la engagé lañ cay dox te bañ engagé waa Touba population Touba bay wax nit waa Touba pare nañ pour jàppale diw wala diw ak xeexal diw ak diw ci réew mi lañ bokk nag. am nañ ci xalaat ci lu nekk manees na ci am suñu xalaatu bopp nit ku ne di ci amee xalaatam waaye itam dañ koy teg jaarale ci yoon te bu dee ci mbir mii nga xam ni mooy mbirum Ousmane Sonko mii ak mbirum Adji Sarr mii ñun liñ ko jàpp mooy mbirum yoon la ñaari sénégalais la kenn tuumaal moroom gi yoon war koo àtte jeex na ñun noonu lañ ko jàppe waaw eh, ba tax na eh, ñoo yi leen di ñaan daal ñoom gone yooyu nekkal Pastef te nekk Touba bu ñuy waxati ñuy wax ci turu seen kuréel googu ak ci turu seeni turu bopp te bañ di wax ni ñoo ngi di engagé waa Touba ndax waa Touba moom boo ko waxee ëpp na te boo moytul da ngay tooñ suñ kilifa yu tedd yi li leen ñor leneen la jaamu yàlla la wéetal yàlla zikru la alquran loolee leen ñor waaye boo nee waa Touba kon ñëpp nga ci boole te loolu daal rafetluwuñu ko ginnaaw loolu eh, li nga xam ni ci réew mi te dëgg-dëgg neexul ba neexul waaye réewum senegal war nañoo xool suñu yeneen réew yi ci àdduna sépp ni ñuy doxale bokk sax ci mbirum politique ndax jàpp nañ ni politique daal du du du loo xam ni saa su nekk rek at mi yëpp dañ koy politique loolu Sénégal rek la am loolu nag wara a nas war a nañ ci taaw def taxaw seetlu xool nuñ koy saafara loolu nag damay interpeller directement les médias rag rawatina nag télévision yi ci Sénégal ndax neexul ba neexul waaye loo gis dafa am nu muy war a demee règlement bu ne de élection dafa jot ñu ni campagne dafa jot campagne électorale di waajal élection lañu war di joxe micro yi ñuy wax ak ay débat politique la ñu wax ko war di def ku ci ne di wax di jàmbaarloo ci politique ci xalaatin waaye bu ñu demee ba élection jeex ñay gañe gañe nañu bàyyi ñu gañe ñi gañe ñi ci des nekk ci seen i yitte ba ñu xaaraat élection yi ñëw ba xaar campagne ba ku ci nekk loo am looy wax nga wax ko loolu yoon la ñun li jàpp mooy xidmal xarnu bi dafa jàpp ni réew mi nag segam dañ ko teg ci loxo yi am ñoo xam ñooy responsable yooyu responsabilité boobu muy président de la république ak gouvernement am ñoo ngi leen di interpeller pour que médias yi rawatina télévision yi ñu man di ràññee campagne électorale ak lu dul campagne électorale ndaxte kat Sénégal mënuñoo dëkk rek ci campagne boo xam ne du jeex réew yi ci ñi ñuy wax ci démocratie yépp réew yu mag yi nga xam ne ñoo ñu jiitu ci démocratie gën ñoo leerle démocratie ba ñoom ñu koy wax sax gën ñu ko dëgërle réew yooyu bu ñu campagner ba def élection ba fal ñañuy fal ba noppi doo surtout ñu fi nekk di nekk ci ay débat de campagne waaye Sénégal moom télévision boo gis léegi dafa mel ni li tax ñuy sos télévision du dara lu dul campagne ay émission yoo nga xam ni rek dañuy boole ñaari euh, kujje politique wala ñeent wala juróom-benn ñu toog di ŋàññante di loolu neexul ba neexul eh, sonal na waa Sénégal te télévision jumtuwaay la boo nga xamee ni war naa mën a jariñ askan wi ci loo nga xam ne nii day yar suñu doom yi ci loo xam ne nii dafay dafay yee askan wi waaye du rek ci loo nga xam ne nii mbirum politique dong lay doon loolu moom la xidmal xarnu bi di yuuxu nu mu gën a foore ñoo ngi koy ñaan président de la république yow mi nga xam ni yow la yàlla tànn nga jiite réew mi yore responsabilité boobu ca dëgg-dëgg ñu xool naka la ñuy def ba suñu médias sénégalais yi rawatina télévision Sénégal yi ñuy teg ay émissions yuy jariñ askan wi te bu dee wàllum politique ñuy bàyyi ba bu campagne jotee ñuy wax waxi campagne ak i débat politique ñu koy def ci campagne électorale bu jeexee ñu pare ci jublu ci leneen. neexul ba neexul loolu lu jara leeral la ndaxte fi mu ne nii ñun ñëpp ku ci nekk xam nga ni léegi télévision yooyu boo seetloo ci boppam télévision bu ci nekk rek leer na wane na fa mu féete te jàpp nañu ni li nga xam ne day ñoom moom la ñu naan ñooñu la ñuy roy muy réew yu mag yooyu loolu du amul ci seenum réew télévision day nekkal askan wi waaye télévision du nekkal ab groupe wala mu nekkal benn jëmm doomu aadama di ñëw di ŋàññi ñi ci des ñuy ŋàññante ci biir télévision ak boole ñuy ŋàññante loolu daal taxul télévision jóg taxul télévision jóg te kat ah depuis Senghor mu indi lii yaatal gi ak Abdou Diouf bu ñu xamoon ni nii la télévision yi di doxale kon askan wi duñ xeex loolu yàgg nañoo xeex pour ñu libéraliser média yi waaye bu réew mi xamoon ni nii lay demee kon yaakaar naa ni duñu xeex loolu ba muy am loolu lu jara wax la ndaxte kat Sénégal ni muy doxe mais dafa doy waat bu ñu nee nii ñëpp moo ne dañuy ŋàññ suñu nitu politique yi politiciens yi politiciens yi waaye politiciens yi man dafa mel ni fi mu ne nii léegi eh, média yi ñoom ñoo gën di politiciens politiciens yi kenn gënu leen a politique te politique politicienne bi ñuy bi ñuy dingat ci boppam ñoom ñoo koy def léegi ñii naan société civile it la même chose ñii ñu naan aussi li euh, mouvement bi door a jël ci ñi ñuy revendiquer nu mu tuddati ñoo ah, ñooñu tamit ah la la même chose mais réew mi il faut que ñu ràññee ku ci nekk ak rôle am mu koy def syndicaliste bi te dëgg-dëgg syndicaliste ak politique bokkul mën na am nag cachet politique ndax ku citoyen bu ne am na foofar waaye boo nee da ngay def syndicat da ngay def syndicat waaye syndicat liñ ci xame mooy kuréel gu ne am na syndicat bu amee lu muy xeex syndicat ba mooy taxaw di ko xeex waaye am ñoo nga xam ni dañ leen di tudde ay activiste léegi bu kuréel li ñuy seetlu ci réew mi mooy kuréel gu am lu la naqari boobu wala ko nga woo sa syndicat mu xeexal la loola wala mu revendiquer la ko loola activiste bi mooy ñëw taxaw place su syndicaliste ba di wax ah loolu neexul ba neexul anarchie lay indi cim réew te nag ñun dañoo bëgg Sénégal comme ñëpp nañu xam ni Sénégal du politiciens yi rek moomuñu ko médias yi rek moomuñu ko activistes yi rek moomuñu ko ñun ñëpp ñoo ko bokk am ci cër te ñun ñëpp dañ fee am suñuy intérêt suñuy njaboot bëgg stabilité ak jàmm ji nga xam ni moom lañ xamee réewum Sénégal dañoo bëgg mu sax loolu moo waral xidmal xarnu bi di fas yéene di dox ci dëkkal war may mag ñi ngir ñu man di suturaalante di man di wegante di mag man di nawlante ngir suñ senegal gii kat yoon wi ñu ko xamee woon mu sax ci yoon woowa mu yoonu jàmm yoonu teraanga yoonu waxtaan ak saafonte waaye lii nga xam ni kat mi ngi am ci senegal ah, neexuñu te dinañ ko wax parce que nag bu wax jotee ku ne da war a wax te ñun lii lañ jàpp ni moo war a doon suñu wax ki ñu koy adressé nag mooy ki nga xam ni nag moom la yàlla dénk mu jiite réew mi muy président de la république moom nag lañ koy wax ndax moo yor boobu responsabilité tey bu fekkoon ni ñun ñoo yore responsabilité boobu dañuy ci saafara bu baax ndax xam nañu jàngooro ji waaye nag moom mi yore responsabilité bi kon moom lañ koy wax na fexe ba. ñiy syndicat di yem ci seen syndicat ñay activiste di def seeni i ñibbi tey bañ di ñëw di jël place ci syndicat yi waaye tamit média yi rawatina télévision yi ñu xool seen i doxalin ba nga xam ni duñu dëkk ci campagne électorale permanente lii daal mooy li nga xam ni naqarlu nañu ko ci réewum Sénégal ñuy ñaan président de la république indi ci ay saafara wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu برأني الباقي من الأمراض وكب من أنكر باغترادي له شكوري على حياتي عبدا قديما فاز بالآيات